Dakar nga am info bëgg waali ba jeex rek. Mm-hmm. wala nga bañ waali ba jeex ñoom boo bëggee waali ñu ànd ak yow quelque soit fa mm-hmm. te déggaguñ nag par exemple am ndaw ci benn détail bu mu yàq waali wala lenn lenn benn track bu mu lancé bu mu lancé waali Seck wax dëgg yàlla comme maanaam waaw déggaguñu benn track boo ko lancé boo xamante ne bii lu ñaaw la juste dama doon laaj loo xamante ne bii par exemple moo tax am ndaw jegeetul seen waali parce que dañ ko seetlu si saa seetlooti ko seetlooti ko seetlooti ko donc loolu moo tax ñu posé la question boobu parce que fii nii moom fi la lépp leere ngir bëggoon am ci ay leeral ni am ndaw kat lii moo tax mais yow tontul nga sa bopp ka ne yow yaa sentiratul scène bi wala boog xañ na bëggoo cee xuus dëgg-dëgg li xew am na lu nekk ci sa biir xol loo génnewul. <laughs> déggoo li ma la wax ma yaasin may sa biir sidit la ci xol kenn du ko dagg baax na mhm. généré na mhm. xol bi laab na déggoo ma ne la man bu ma ñëwee ci soirée waale sax ñu téema ma mën naa dagg tike ñëw cons waali waali la su ma ñëwee pour yéeg seen waali sax ñu téye ma du du du du du waali xëy na nit ka moo am xelam tollu mais loolu mës na am non seetlu non ma ko sax mës na am da nga ko dégg da ko gis non mës nga ñëw soirée waale ñu teel la da nga ko gis nga bëgg a yéeg yéegoo. am nag fii dañuy toj yax non non xam nga xam nga xam nga dañuy waxtaan xam nga fii waxtaan la te pourtant waxtaan bi sinon dañu naan journaliste bi moo saytaane dafay jaxase am ak waali et pourtant non lu am la parce que am bëgg na yéeg seen waali mais yéegul man gis naa loolu teg ci sama bët am nag ba léegi li ma bëgg a xam mooy lu tax am yéegul loolu am lu ma ko parce que peut-être dafay rafetal. <laughs> déggoo ma ne la. le succès boobu ngay wax. waaw dama sañ sa ñëw Papis Ndiaye moo ma jox bat yi. Papis ndeysaan ku baax. waaw ah. taman bu ma ñëwee ah, ci ci fa artiste yi chaque jour damay toog ci sama bopp parce que seen waale du caaxaan. walaay du seeni seen yi du n'importe kii moo fa yéeg. dëgg la. dëgg naa dëgg bu ma yoree sama bat si ñëw ba ci chaîne waale bi ñëw ba foofu taxaw foofu xanaa waale moom ci invité am laa bokk. dëgg naa dëgg. yaa ngi dégg. Mhm. yow yaa yow boo waxuloon ne fekkee nga loolu man aw ma jot. bu ma yoree ko fekkee dama ko fekkee parce que maa ngi taxaw <coughs> ku ne xam ne ni CICES Feeling Dakar donc ñoo ko. bokk nañu ci ñi ko couvrir parce que ñun moom chaque événement donc on est au cœur. maa ngi fa woon taxaw. voilà gis nga ki ma téye. ki la teeg ki la ba yéegoo. waaw da bëgg ma wax ko. waaw waaw wax ko. d' accord vas-y la téye xaritu waali la garaaw. Eh, waaw d' accord bi ma téyee pour ma bañ a yéegit amul problème ma oo ko ne ko kaay mu wàcc ma ne ko man maa fi jiitu bi ma ñëwee damaa ñëw toog gis la ne la sentir naa temps de son bi waali di wéy Doro Gueye nga ne ma waaw jox ma sées ba ma toog bi son bi di ñëw da ngaa yéeg ci kaw bi ma ñëwee ba war a yéeg ñu téye ma ci foofu noonu sama morom artiste yi nga xam ne ñoo ma fekk dañoo ñëw nga yéegal leen kenn par kenn. te yow fala la bloqué. fala ma bloqué ma oo ko ne ko kaay mu ñëw ma ne ko wax ma lan moo nekk sama diggante man ak yow xaw ma ko. ah franchement lan la. mais nag bi borom bi borom yëf yi wàccee fala la fekk. waaw ah. dégg nga la ma wax lan moo tax yéegoo ma explique ko ki tax yéegu ma mu métti ko joxal leen ma am 500 euros mu paas dem bëgguma ci woon couche parce que dañ lay indi détails yi. du bëgguma détails yi te et puis euh, ma je préfère. waaw changer gamme boobu nekkaat leen s'il te plaît. s'il te plaît bëgguma bëgguma am dama lay nangul parce que euh, mm-hmm. c'est vrai que révélation bi nga xamante ne bii. Euh, jox nga ma ku nekk xam ne ni CICES foofu ci bunt bi donc mbokk ndeyum balaa Ballago Seck moo fa nekkoon di yëgal artistes yi c'est vrai que bëgguma dugg de trop dans les détails peut-être que choix la wala li tax am ndaw yéegul donc loolu yëpp euh, man bëgguma ci xuus personnellement dama bëggoon am waxal ko boppam donc man aussi euh, ñu xam ne Euh, CICES loolu moo tey yéeg am do am ñëwoon na pour sénégal yi di pour pourquoi am yéegul CICES ah c'est vrai que euh, doomu ndeyu Waly Ballago Seck Amady bajaan moo fa nekkoon taxaw si buntu seen bi donc moo doon yéegal artistes yi euh, loolu lu ma fekkee la du lu ma kenn wax maa ko gisal sama bopp donc Amady Badiane kon moo téye am ndaw peut-être loolu aussi choix la toutes les façons du ma ci yàlla mën na dogal ñu jàkkaarloo man ak moom ci plateau bi dinaa ko laaj lan moo tax lan moo tax loolu ci yàgg de trop. c'est vrai c'est vrai que c'est vrai que du ma ci yàgg trop parce que euh, lenn moom xam naa ko c'était la deuxième fois may gis remarque boobu. Mhm. ci Eumeudi Badiane ak yow parce que Kaolack aussi c'était pas fluide nga ñëw rek yéeg parce que Kaolack aussi Eumeudi moo fa nekkoon <laughs> waaw waaw Kaolack dëkk la Wally joué na fa mais bi nga yéegee ci scène bi aussi wala avant nga yéeg du woon amoo woon freedom bi am na war a am ci seen te aussi di toujours moo nekkoon di régulariser ci confirme da nga naan ma waaw wala xam nga man waali mhm. li mu def kaw la rek la war a def dëgg la bi mu ñëwee takk mhm. fa la Doro Gueye dëkk ku nekk xam na ne diggante Toumane waali mhm. sama frère boobu waali ñëwee dugg si ne ana am ma ñëw mu mu mu sàkk mu def loo xam ne nii daf ko war a def ma ne ko dugal soyez les bienvenus. waaw mm-hmm. ah, ñëwal ci kaw. bi mu ñëwee sama dëkk dama ne. Mm-hmm. waale comme dama koy fekk Dakar mu di ma teral tey tey mu ngi ñëw sama dëkk nii li ma am kasub tuur dinaa ko fekk waale foofu ma jox ko ko tey du ma nekk sax di wax ak waale wax ju bari ok man la fekk si. tey awma lu may wax ak waale wax ju bëri man avant soirée balaa dem avant soirée balaa dem. Mm-hmm. dem ànd ak ñoom koy def suñu ay caravane yooyu yëpp. bëgguma xuus si loolu trop. dëgg la ah. dëgg la. Mm-hmm. Amadou Ndaw mais ki ci kaw mun na bañ yëg li ci suuf ki ci kaw mun na bañ a ci suuf mais tamit doo topp kaa ba mu ëpp parce que amee àndil détail te man nekkuma trop détail quoi franchement bëgguma ñëwee noonu Dakar. kii moo ma wax kii moo ma def kii laa jotel kii bëgguma ko su ma sañoon ñëpp lay amal jàmm barke Seydina Mohamed ñëpp lay amal jàmm. te man xam naa ne man man man jotewumaa kenn dara. di ba nga ne ko lan laa la def ba yégalu ma lu mu la tontu. non def na ma defoo ma dara defoo ma dara ma ne ko lan moo tax ñi ngay yéegal ñam ma jiitu leen fi jël sama taxi nekk ci rembourement bi dépp déplacé wu pour ñëw defi bége yow laa waxal yaa mën a toogal ni yow ci gan bi nga bokk. ba pare nit ñi ñëw jot nga yéegal diw yéegal diw yéegal diw yéegaloo ma lan lañ jotee. lan lañ jotee parce que xaw ma ko bu dee loo xam ne man dama la ko def tey jii nii mu déranger la damay jano yow na la baal ma. ndeysaan ouais ko rëylu. dëgg la. mais nag yow munoo ma xam nga waxuma waxu Amady dama bëgg sax ñu génne ko. dañuy waxtaan non non waxu waxu kooku génne ko. parce que ñu bëri ñu ngi fa woon bëgguma dugg ci détail boobu noonu. après day indi ay polémique. eggalil mhm. yoon la. yoon la yoon boo fay dem day am gàllankoor far fas la day am ay dog-dog day métti sa xol da ngay toog tiit parce que yow yaa opté daan doole bi yaa opté lii liggéeyoo mécanicien liggéeyoo tôlier liggéeyoo dara aar rek nga yaakaar sa àdduna aar ci nga war a teralee say waajur aar ci nga war a teralee nit nit ñi nga xam ne ñoom ngay dimbale oh. mais tey jii nit mën na dem sax tey jii nii dem ci sëriñ sax tey jii nii kii fexeel ma mu lekkal ma lii fexeel ma mu def lii xamal ma këram jëlal ma lii liyam pour lan nga gàllankoor ma ma delluwaat sama dëkk toogaat def nii. nit ñi di dem di ñëw di ma fa fekk. quel la le problème aar du xuloo aar du xeex ñu bokk teen ñooy laxasoo goj ku nekk mën ngaa nekk fa nga nekk te du tee nga am. nit ku nekk la mu am ndeyama ko liggéey ca kër baayam ba tax du torox. quel est le problème. dëgg naa dëgg sénégalais lañ nekk sénégalais lañ nekk siisu bi pour lan la yaa ngi dox di am maa ngi dox di am am na foo xam ne dem nga fa demagu dew ma fa la nga gëm gëmuma loolu waa la ngay am dama kaa am doo gëm ndogal lan la man jotewuma kenn dara. barke seexal islam jotuma kenn dara ñu ma xam dëgg xam nañ ko free. ambiance waay ambiance free. bilaay bilaay loolu moom mën naa ko seede. waaw nit nga koo xamante ne bii ci ambiance rek ngay dox mais itam euh, yenn saay te est-ce que c'était la première fois euh, ci sa carrière am ñu di la siis wala toroxal la ci aar ba nga yëg ne toroxal nañ ma ci aar rek nga ko tudd. ma ne man Badou mbay mun na ma seetaan du ma tudd tur man bëgguma tudd tur quoi. dëgg la boo ma xoosee fii ma xotti ko def ci asib dëgg la duma tooñ nit mës naa ànd ak Badou Mbaye Baara Mbaye Mbour ak Bër sama frère la boobu maa ngi dëkk Kastoor ak fii kon parcelle parcelle métti nag ma yor huit mille huit mille francs Kastoor métti Badou oo ma ne ma nañ dem gaynde ma ne ko booy yoruma xaalis booy mën ne ma nañ dem ma ne ko billaay tey dama yorul xaalis mu insisté ma jël huit mille francs yooyu noonu ñu dem paas mille francs mu yóbbu ñu du 4000 francs yi des. 4000 la des. ñu dem ci porte bi ñu ne entre 3000 mun ne ma taxawal ñu xaar gars yi artistes yi ñuy dugg ma ne ko mënuma loolu. man mënuma ñëw fekk ma fii ñu ne am day xaar pour ku ko dugal. Mhm. ma paas 3000. nga paas 3000 dugg ma paas mille dugg. ma dese la 1000 francs mu dese ma 1000 francs ah. foofu boisson 1500 la. romb na ko kay. gaynde kay boisson sax dafa seer. <laughs> mais rus naa toog fi ma toog te duma naan boisson. ndeysaan Abdou Waxaab am benn grand gis ma dama ma euh, kaay ma ñëw mu ne ma gis nga ñee toog ne ñëpp say fans lañ fa la fekkoon jour boobu Fafa Gueye suma frère. Fafa waay ñee ñëpp say fans lañ ma ne waaw ma xool ba ay 4 heures jot ma jóg ree xool waa ji ree. parce que boo yëg ci seenu nit boo ko jubee réel. Mhm. boobu naanoo boison damay toog nagam su ma naanee boisson xaw ma lu ma fi am est-ce que dinaa ñibbi munu ma nag xool Badou mbay même dara bëgguma ko xool ko que boobu man xam naa ne man après dinaa am problème quoi. d'accord ah ma yëg ci kaw seen bi fecc xool ko bi ma yéegee ci kaw seen bi mu ne ma. nii ci kanam. mu ne la ci kanam. waaw ma dem toogaat. artiste bi moom ci boppam ne la ci kanam waaw ci kanam ma dem toogaat. ndeysaan toogaat ba benn heure bi maa ngi tiit lu may paasee ñibbi ma dem xam nga nu def. Mm-hmm. ñu may ko mun a tey kenn du yéeg damay enregistré. barke Seex al bi wax tey kenn du yéeg damay enregistré continué son ma wàcc ak sama fecc. te boobu yaa ngi woon ci kaw scène bi. ci kaw seen bi laa nekk mais dama wàcc ak sama fecc défilé wu ba dara méttiwu ma ñama yéene dañ may teral ci digg géew ngay def teral ma ma def semblant fecc waaw bu munuma ko boobu boobu boobu am naa gàcce toroxal na ma mais ma ne yoonu dem la te boobu yow yaa waroon na yéeg parce que yéeg nga ci kaw seen bi yéeg naa ci kaw seen ba ñëpp gis na xaw pour mu jox ma ndeysaan ma wàcc dem heure ñi bi jot bari na ma nañ dem ma ne ko du dem lu tax ma ne ko kii damay wax ak moom mun na ma looy wax ak moom ma ne ko xam naa ko ma fekk fi mu toog ma nuyu ko papa xamoo ma mais man je te connais mais tu me connais pas. man ko mais nag dama sentir woon sa son bi parce que boobu defuma aar dama ko doon dégg di ci am ay inspiration ay affaire yu ma ci doon teg. Mhm. ma sentir ko fii loolu la mu ne ma non dama doon dama doon dama doon kii dama doon enregistré ma ne ko maa ngi dakaar rek genn ñu dem ñibbi. maa ngi Dakar mooy la maa ngi dakaar dangay ngay gëm sa bopp. ku nekk sa ndey liggéey na sa kër baay. loo war a am da koy am boo jëlee sa àdduna teg ko ci eh, nit yàlla da lay bàyyi ak moom. dëgg la da ngay jóg di góor góor di daanu tey mu métti suba mu naqari. tey mu métti suba mu naqari. tey nga gis koo xamante ni da ngay nekk ak moom am na ñoo xam ne yaa ngi nekkoon ak ñoom depuis enfance. gisatoo leen. da ngay jékki-jékki sa xel nekk ci kenn koo xam ne am na lu ngeen dundoon loo xam ne souvenir la far force la day métti mais da ngay burle rek dem yàlla baax na xëy na du naqari ba nga xëy de waay waay waay franchement donc mi ngi noonu c'est émouvant li ngay li ngay li nettali nii ci aar am ndaw euh, c'est émouvant man dafa daw sama yaram franchement euh, lenn la loo xamante ne bii su may dégg nga koy wax damay xam ne xol nga koy waxee parce que aussi euh, jaar ci aar fu nekk moo metti li ñu naan. bëgg bëgg a tekki ci aar metti yoon la boo xamante ne bii dafa metti c'est vrai que bu ngeen ko dee dund yéen ñi koy dund rek yéen a ko mën a xam donc bu ñu gisee sénégalais yi gis parfois ngeen def benn perse def am succès donc euh, aussi du bett kenn am ndaw mais aussi euh, li may wax rek lu ñu naan loo loo loo loo doonul taalibeem rek loo doon sëriñam tey jile macha allah Sénégal yëpp nangu nañ waaye tey la gën a metti donc tey nga gën a am ay difficulté ci wàllu siisante waaye nag ndox ko ba nga amee talent nga xamante ne bi ku dégg am ndaw sentir ko foo taasoo ñëpp kontaan internautes yi ñu ngi wax sànq ba tey ngay saan ñu ngi naan la courage ah ñenn ñi vraiment naan showbiz milieu hypocrite la ah dëgg rek ñu ngi lay bëggee moom frère di bëggee ñëpp ñi nga xamante ne bi ñu ngi commentaire euh, wax dëgg yàlla euh, am internet yi laajte sa numéro nag 77. waaw 113. 38 96. baamtu ko. 77. 113 38 96. d' accord merci beaucoup c' est vrai que peut-être dañu lay euh, soxla walla ñu am euh, yëg-yëgu wax dëgg yàlla bëgg la woo fenn ndax am nag ku ko. woo macha allah ci eh, xew bi nga am wala fi nga xamante ne bi foofu nga ko sentiré boo ko woowee tubaar fa kàlla mu defar la lu rafet defar la lu nice loo xamante ne mais am da nga concentré wu ci waali ñëpp xam la ci waali ñëpp xam la ci waali mbaa sa diggante geneen artistes yi ratax na Sidi Diop a ngi fii Pape Diouf a ngi fii Youssou Ndour mbaa ñoom itam du ñu la féetale waa ji boo boo demee boo demee ci ñoom mu nar a doy waar Youssou Ndour hmm. est-ce que est ko génn ci Youssou Ndour suñ papa la ah mi ngi suñ papa la mi ngi def ba tey mu ngi def ba tey suñ papa la Youssou Ndour heure bu ñu amee possibilité nekk ci moom dañuy dem ñaata yoon laa dem TFM na TFM ndeke tool la. ndeysaan ah Youssou Ndour moom tool bi Abba mooy jilli ci tool bi Bouba Ndour moo koy. arrosé Ndiaga Ndour mooy gérer tool bi Birane Ndour doom ja toog ci digg tool ba di ko defar ba mu law ba faw. Mhm. Hmm? Mhm. ñaata yoon aw man aw maa kenn jotee. Mhm. aw bii léexi aw maa kenn jotee aw ma xanaa ko bëgg a jotee ak man dëgg la ah. ku bëgg ku bëgg ku bëgg joteeg yow rek euh, mooy joteeg yow. mais mais sa digganteeg Youssou Ndour a tax na. sa digganteeg Papa Diouf. aw ma kenn problème bii léegi aw ma kenn problème. ki la waxoon day enregistré nag yaa ngi koy dégg moom. ki la waxoon day enregistré gaynde non mu ngi Dakar mu ngi may gis. <laughs> noonu nga ko maa ngi dakaar de en tout cas. waaw mu ngi may gis. te fu ma ko fekk dama koy jox ko père. parce que fàtte woon naa loolu du ko dund.